Ousmane Sonko ma nga ca diggante dund ak dee Walf Quotidien moo ñu ko xamle bu ñu sukkandikoo ci waa kaddu yeewi askan wi ay dambo jakaay ñoñam ne xàmmeetuñu Ousmane Sonko gañu xamoon ci lalu hôpital loof na lool ne xatul xàmmee Ousmane Sonko dugalaat nañ ko Sowétas ba tax na waa yeewi askan wi tiit nañu lool ci ëllëgu Ousmane Sonko ne bu ñu sañoon ñu génne ko kaso ci na mu gën a gaawee yéen kaabit Walf Quotidien moo ñu ko yëggee ci xatam bu njëkk Habib Sy wax na ci xamle ne tey ji yaa ngi bëgg a Ousmane Sonko ngir sooye bakkanam ndax bakkanam ma nga ca xottu gerte Habib Sy wax na ci ne la ko gën a métti mooy tekk tekkaaral gi ay organisme ci international bi def yeyuñu yàppiwuñu ci mbirum Ousmane Sonko dañoo seetaan njiital Pastef yéena kaabi di sursaane tata Aïda Mbodj di soxna Aïda Mbodj wane na jaaxleem ay rongoñam tuuru nañu démb ci janoom ak taskatu xibaar yi ndax keroo bu mu demee seeti Ousmane Sonko xàmmeetul Sonko ma mu xamoon ci yàlla hôpital Ousmane Sonko sax xàmmeetul kenn ci jamono ji Aïda Mbodj moo ni waxee eh, kii di Habib Sy tamit wax na ci dossier Ousmane Sonko waa Yewwi Askan Wi eh, taxaw nañu tembe ngir taxaw seen njiit eh, Ousmane Sonko mi ñu ne nañ ko génne ci kaso bi balaa yëf yi du uppi loxo ndax ci jamono ji bakkanam mu nga ci xottu gerte ñoom jot nañoo ñaawlu jaay doole gi ñu ne moom la ngur gi jaay doole Ousmane Sonko ba dugal ko ca kaso di ndungu siin mu ngi ci yéen a kaabi di Source A yéen a kaabi di l'info ne lu aju ci tolluwaay réew mi F24 wax nañ ci ci euh, fa ñu tegoon seen tànk teguwuñ ko fas yéene nañu ama tournée fépp ci euh, réew mi rawatina ci kilifa diine ngir yëggee leen jafe-jafe Sénégal di dund ci nguurub Macky Sall jaay dooleeg euh, nootel salfañe ak ak yelleefu doom yaadama ba tax na Mamadou Mbodj bu F24 xam le ne fileeg ay fan dañu yëglu rawatina ci weeru septembre gi ñu jëm mu ngi ci yéen kabi di l'info yéen kabi di Sud Quotidien F24 dellu soit nañu fas yéene jàkkaarloog njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram la ci mim réew kenn amatu fi afiya kenn amatu fi jàmm kaso yaa ngi fees del ndax jaay doole gañu ne moom la nguur gi di jaay doole askan wi rawatina képp ku wone sa ci wàllu politique ñu yóbbu la ndungu siin F24 ne defee war a dakk sàkku nañu ñu amal élection yu mucc ay jaar ci yoon élection yoo xamante ne na ci ñëpp bokk rawatina Ousmane Sonko njiital euh, Pastef war ñu ko xañ yooyu la wote euh, tànneefu njiitu réew yéen a kii di l'évidence ne tànnagul candidat ci coalition euh, Benno Bokk Yaakaar moom Sall loolee nag tàmbale naa jur euh, jafe-jafe ci biir coalition présidentielle Doudou Ka euh, wax na ci dankafu na ay ñoñam ñi nga xamante ne ñoo yëkkati seen euh, kaddu ak seen loxo ne candidat lañu ci biir Benno ñooñee daanaka joxuñu cër joxuñu gëdd njiitu réew Macky Sall ndax waroon nañu teewlu njiitu réew Macky Sall mu def tànneefam ci anam yu mucc ayib ñi yëkkati kaddu ne candidat lañu ñooñee dañoo war a tekki seen ndombol tànk ci saa si lu aju ci dossier Ousmane Sonko njiital Pastef mën na cee loxo yoon génne ko ci kaso bi ca na mu gën a gaawee rawatina bépp détenu euh, politique euh, Doudou Kane ña koy sàkku daanaka euh, dañoo fàtte lu bari ci mim réew ne loolee wax ju yàqu la ndax buñ ko defee rek mooy yoon day nërmeelu ci Sénégal nañu bàyyi yoon def liggéeyam ci dossier Ousmane Sonko l'évidence ne ma ngay dagaan baatu askan wi Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ma nga woon ca zone de ñaay waxtaan ak béykat ya fa ne taxawu leen bëgg na ko saay bu faloo ci boppu réew mi jot naa càmbar jafe-jafe mbéyum Sénégal di dund bu ñu sukkandikoo ci Bougane Gueye euh, Dany yéen kabi di l'observateur mu ngi ñu dégtal ci wàll suuf goo xamante ne euh, tënk na tey Medina Baye euh, jëm ci xalif ba bokk na ci am nañu ko njuuj njaaj ci wàllum suuf yéen kabi ne mbir moomule tollu na ci juróom benn téeméeri hectare bokk na ci ca Nioro du am na ñu ca jot a teg loxo ña leen di déglu dik moom jot naa teg loxo bureau conseil des notables lébu ci Grand Cap Vert ndax ci wàll suuf yéen bi di l'observateur ne teg nañ ko loxo yàggut mama kundul ak ay ñoñam soxna soose doon taafantaloo ne jigéen ju wérul la doon taafantaloo ne dañ ko teg loxo yóbbu ko ci doole te loolee dara amu ca yenn cabinet teg nañ ko loxo yoon daan na ko juróom benn weeru kaso yoo xamante ne benn weer la cay eh, tëdd ak ay ñoñam ñay laloon pexe yaak eh, fem ya eh, bu ko itamit réerloo te jotutoon a réer mu ngi ci yenn cabinet di l'observateur libération ne amagul liberté soxna si di Marie Lo yéen cabinet ñu ngi koy toppee njuuj njaaj ci mbirum marché public xayma nañ ko ci koppar mu toll ci juróomi téeméeri million yu toppal juróom fukk ba tax na tax teg nañ ko loxo ma nga ca section de recherche ña ngi ko cay déglu lu aju ci Barça wala Barsaq mbëkk mi jógee gu fi Libération moo ñu ko yeggee yàggul dara jot nañoo dogale ab gaal goo xamante ne yëboon na lu toll ci ñaari téeméeri doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom ñaar ñoom ñëpp bëggoon a dem ca Barça wala Euh, ñu bari ci ñoom nag seen yoon googule mujjuta sotti ndax dañ leen a euh, gantal euh, marine national moo leen teg loxo yéen kabi di libération moo ñu ko yeggee yéen kabi di la soleil démb ma nga woon ca île di Saloum foofee ca Thialane bi la yoon nag ma nga ca beneen île di île Sipo gane ca Toubacouta ca Fatick yéen cabinet ren gafane woon di ndem si yàlla Fatou Mané nelaw 2022 toll woon ci téeméeri attaque yu toftal jota liggéey lu bare bari foofee ca Euh, il sipo ca Toubacouta mu ngi ci yéene kaay di la soleil yéene kaay geneen euh, ci euh, revue de presse bi stade ne final gangog stade de Mbour ak i tamit jaraaf final coupe du senegal ñu ngi ci sentu fair play yéene kaay bi ne taarixu football mun nañ ko sentu ci googule football di final sajo Mané yëgluwaat na ca Al Nassr gamu ne dugal na ñaari bi démb yéene kaay bi ne yëgluwaat na moom Sadio Mané ci jamono ji foofee ca Arabie Saoudite suñu làmb xëy na géewal ñaari mbër yii de Boy Niang ak Modou Lo combat googee yi doon lamlame bu doonoon togg ñu ne ñor na combat gi taxaw na janvier 2024 la ñu fas yéene tegu combat googee diggante bo Niang 2 ak roi des arènes euh, Modou mu ngi ci euh, suñu lamb yem ak fu ñu jeexale xeetu yéen kaay tënk la woon incha allah dañ leen ko yaatalal na mu gën a yaatoo ci xibaaru digg bëccëg gi ak Mamou Diaby Gassama moo ñu koy faram-fàcceel euh,